asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ah bokki jullit yi bokki taalibe yi noo sant yàlla di julli ci yonent bi sant Serigne Touba di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké ibnu Khadimu Rasoul xalifam ñëpp sunu borom yàggal ko fi te ko wér bàyyi kookum xelam kon noo ngi sant te di leen dégg di ñaan jataay bii li tax ñu teewe ko yal nañ ci am ndam le 24 la ñu wax le 25 yal nañ am ndam di wax ni ndaje mi nag li ko waral dafa bari ndax dafa bëri ay responsable yu nekk fii ci koñ bi di liggéeyal président Macky Sall te ñu si ëpp di ko ànd ak Baye Alla Sylla ma dikkee di suñu président ànd ko Fallou Sarr son bi ñu fi nekk ñëpp dañ cee bokk ñun ñi ñëpp kenn ku ne bu woote woon sa koñ yaakaar naa ne nga fa dajale lu mel nii waaye ak booloo moo tax lu mel nii. bu le 24 février ñu ànde ko fal président Macky Sall ndax Baye Alla am ndam ñu am ndam ndax Madiyana gi képp koo xam ne yaa ngi fi Baye Alla le na go defee lay yëngu ko yëngu ko ndax lépp loo xamante ni si nit a ngi ci mu dana de def li man. muy xew-xew bu waay am dana ko ànd ak yow mat sëkk kon ñun wër waa Madiyana amuñu fay Baye si Sylla ragal péete nag day xañe war sëkk man Baye Alla mooy son président Macky Sall rek laa bëgg mu gañ waaye Baye Alla Sylla damaa sagal damaa teral damaa sigil te fii laa koy waxee ci mbooloo kon tëgg yàlla lépp loo xamante ne ñu ngi ci na ko ñun te président de la république ñu koy wax fii buñ mënoon feesal urne yi dañ koy feesal waaye danañ def suñu kem kàttan ba lu ñu man danañ ko def bàyyi àlla am ndam ndax président Macky Sall noonu luñ ko delloo ndax nag euh, def na Touba loo xam ne nii li koy delloo njukkal mooy la vingt-quatre février ñu jox ko ndam li ndax teraan ba def na ko Touba li may wax chaque jour rek def na fi assainissement am mi ngi fi def na fi deer bi def na fi ëpp ci affaire ñu ilaa Touba nit nag bu fekkee jën na dooleem jëpp jox ñu te xoolul leen li loo delloo njukkal mooy jox ko njukkal 2019 ngir jëmmi sëñ Touba ndax tàng defal sëñ Touba di sant yéen waa Madiyana baax leen gërëm ndax jàpp nañ ci topp ni ginnaaw ma dikkee rek moom lépp loor ma des ko def ndax bàyyi àll mu fàtte mu ko yàlla fu baax jërë ngeen jëf maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam nuyoo bi nag maa ngi koy tàmbaleeg sama jàmbar yi ma àndal liggéey bi ci topp moo di na ngeen bàyyi xel ne Touba bi ñu jubee élection yi dañ ko def ay pàcc pàcc pàcc yooyu ñu ko def moo waral suñ jataay bii tey ndax ma 1 ba 6 saamuk sëñ Baara Xuréje li ci am solo mooy bi loolu amee ba noppi ñu dikk fii nag di liggéey ñu ànd nag liggéey bi liggéey bi nag du le du dara lu dul falaat président Macky sàll premier tour 60 pour cent mooy suñu objectif loolu nag li ñu koy may mooy yéen ñi fi daje dana am lu ma leen dénk te di ko dénk sama bopp nanu gore nañu xoolante ci biiri bët te bàyyil basang yi lalaka lalli amul njariñ ma dikke jàng bu ñu ko lalalee basang bu ngoonee bu gontee génn ñu lalal keneen basang ginnaawu ko loolu amul benn njariñ amul solo ku ngeen man di lalal ba sang su ngeen jaaxalee du ngeen ko gis su ngeen wootee téléphone du ngeen ko jot su ngeen demee këram du leen ubbi ni man ngeen àndal man ngeen xam man ngeen di gis guddi man ngeen di gis suba man ngeen di gis naaj kon nañ ànd ci dëgg mooy dëgg soxla soxlawuma ci yéen lu dul wateel président de la république nañ ànd gore wateel ko mu topp ci moom am li ñu bëgg ndax président kat fi mu tàmbalee ñun suñ ko mayee deuxième mandat dinañ xam ne fi mu baax na li am solo nag mooy Madiyana rek na góor góoru ba 21 bureau lañ am mi ngi nii ci koñu daara ji soo ko jëlee jëm hôpital Lamine Ndiaye le 24 février incha allahu maag jàmbaar yi ma àndal danañ ànd ak suñ coordinateur ànd suñu responsable de femme maam say taxawu bureau yi bañ am ko ni ñu ko bëggee incha allah lool nag ci yéen ñi doom lañ ko yaakaare li ñu joxoon bariwul waaye nag dañoo ànd suñu jàmbaar ju baax. muy bàyyi àlla si la di ñu jàppale ci fànn yëpp nag nit nag nekk ci politique bu mu teeku la defal ay baax baax nga wax ko politique du ñu tasaare politique boole wuñu politique bu mu ñu xaajale bàyyi àlla lim ñu defal ci ngor nañ ko wax te yàlla tax dafa gore nit ku baax la nit ku yiw la ab taalibab Serigne Touba la bi ci guddi rek maak sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké muy sëñ Cheikh Lappé ñu gën koo xam ci sëñ Seex moom soxna Faati ki ne biig ñoo bokk nekkoon këram lam ñu wax dégg naa ko dégg na ko moom kon politique boolewuma ak moom li ñu joxoon bëriwul joxoon nañ ñu cinq millions francs CFA cinq millions yooyu bi ñu ko joxee saam yi dañ leen a jox deux millions yi Madiyana un ba six Madiyana ku ne dañoo décidé jox ko cinq cent mille loolu mooy li nga xamante ni nii moo ñu fi dajale tey ngir ñu bëgg koo ànd ànd gor leneen la ca topp bu dee gasoil la bu dee ndox la bu dee suñuy añ la bu dee reer la ak ku mën a doon ba ci ñi nga xamante ne nii dañ leen di yeewi suñ wàccee bàyyi àll si la mi moo koy def ci poosam nañ ko wax nag waxtaan wax dëgg ca la nañ ko wax bi ci topp mooy Serigne Bassirou ke nag ci laa jëm si sëriñ bi nun noo ngi lay xamal nun waa APR dama koy tàmbalee suñ coordinateur ba ci maam say Mbacke président de la république dañ lay yóbbante ci moom ndax bu dee ndomb ak tànk yaa ko fi amagun nu yóbbu nu dara te yaa nu yóbbu woon dox na noo doxa dox ba français waxal président de la république ne ko ndaw yi ma àndaloon ñëw ci parti bi geesu leen mag ñi nga xamee ne ñi ngi fi ku mel ne àll si la di jël alalam di ko def ci parti bi du sonn du tàyyi lu mu am def na ko ci bàyyi àll lu mu ñàkk APR ak ko xañ loolu sëñ Bass mission boobu yow lañ koy doxloo ndax ya fa sa kàddu mën a àgg suñ kàddu àgg fa sa tànk mën a àgg suñ tànk mënu faa àgg waxal président ne ko day ñu ko bëgg a fi ne waaye nag jëriñu ñu dara bu dee dëgg la yàlla bëgg duñ ko ba dañu ciy ne ci biir parti bi di liggéey parti bi di wax suñuy doléance ndax parti bee ñu ñor xaddi xuloo wuñu xiiroo wuñu ŋaayoo wuñu APR lañ bëgg 100 pour cent kon nag moom mi nga xamante nii moo jiite APR nañ jàppale yëg ñu xam ne kat moom la ñuy lëggéeyal te nit nag bu lay lëggéeyal da nga koy yëg jox ko wàccu waayam loolu yow Serigne Bassirou Mbacke yow la ñuy confirmer loolu nga xam ne nañu ko yital président mu dégg ko na ko war a déggee ak Mohamed Dionne sa sa xarit premier ministre di taalube sa rakk sa mag Serigne Ahmad Mbacke moom Serigne Moustapha Bassirou ñi ngi siyaare bu baax tey jéggulu ñi ngi siyaare Serigne Bass Tif suñu Serigne di ci teg soxna maam say suñu doomi sëriñ suñu sëriñ di nuyu Mamor Mbakke suñu sëriñ saam la jóge ñëw ànd ñun ci li ñuy def di nuyu nag jigéen ñi bu baax di nuyu ñëpp dañoo nekk ci politique di dox lu nga xam ne yaakaar nañ ni ci dëkk bi bu ñu ci continuer ñu jàppale ñu foog nañ ni dañuy am ndam 100 cent am nañ ci yaakaar bu baax di nuyu nag waa Madiyana ay nit nag boo leen fekk seet faaw nga nuyu leen di nuyu ma dikkee bu baax waaye nag maa ngi nuyu rakkam yi ma ñu ngi leen di nuyu bu baax yéen ci ak seen sant dañuy politique nag yàlla dogal ñu boole ma ak seen doom ma yor ko te yorin wi rafet kon dinaa leen nuyu yéen waa zone 1 ñu ngi leen di nuyu bu baax ku dolli cere war ngaa dolli ñeex danoo ànd ak nit ñi lim nuy sant dañ koo fas yéenee def xam nañ li ci deuxième mandat buñ ko ko jàppalee ba mu am ko ñun li ñu wax fee rek la ñuy wax fii dañ koo war a poñe dañ ko war a poñe ne ko nag ñun lii lañu bëgg tamit ku ñu ko defal loolu laa doon leeral li ci des liñ ma dikkee leeral na ko kon jërëtut ma ciy jaar politique daal lañ ñuy def loote noo ngi koy def fu Touba nekk milieu de terrain la ñuy def ndax Daaru Xudóos lañ gont ña ngi fay def lañu ñu war a def du ñu xaar kenn ci zone yi boo gisee d'accorduñ ci woon lii rek moo tax xam nañ ni nit ñi ni ñu war a dox doxewuñ nu waaye ñun dañoo fas yéene dox ci suñu dooley bopp ba président lim bëgg mu am ko. bu ñu fi ñëwee tey dañu fee ñëw fekk fi comité électoral bi nga xam ne comme ni ñu séddalee Touba def ko ay poule def ko fukki poule yoo xam ne moom lañ ñu def Madiana ak Saam euh, sama njaboot xëy na nekk fii yàlla dogal ñu ànd ànd bu rafet sëñ Aliou Sylla mii jiite ko nekk coordonnateur bi soxna maam say sama rakk sama xarit nekk ci biir ma dikke sama ndaw nekk ci biir kon jaar na bu aayee tey ma ñëw rafet lu ànd gi ñu ànd ndaxkat man jàpp naa ne sax li Moustapha Sy la doon wax léegi muy ñàkk gi fi daan ñàkk ndam li ñu ko gënoon di xañ mooy ñun suñ biir ñoo ñëkkoon a xàjjali ko ay nit nag buñ dee woote te ñoom ñi ñoom ñiy woote ànduñu dana jafe ñu am ñuy am ndam. waaye nag bu fekkee ne buñ ñëwee fii ñu teg ñu gàcce buñ demee fële itam duñ fa mën a siggi ba fay doxal kenn dara kon loolu ñun ñëpp ci loolu lañu tënku. di ñaan ñi nga xam ne ñoom lañ dëkkal te nga xam ne xamuñ mën nañoo bañ a xam sax président waaye nag ki nga dëkkal muy Aliou Sylla muy ma euh, Madické muy soxna Maam Say muy soxna Awa Fall bu set ñuy xëy ci yéen di gont ci yéen bu ngeen amee soxla ñoom ngeen di gis lu ngeen nekk ñoom ngeen di gis ñoom rek war naa jar ngeen siggal leen defal leen liñ bëgg ba ñoom itam ñu mën a sax ci li nga xam ne moo leen njëkkati muy taxaw ci seen i yitte wax ji jërul guddal dañu ñëwoon rek ngir wàll si xamal leen ne kontaan nañ ci ànd gi Madiyana ànd kontaan nañ ci dox gi ñuy dox tey tam ñu ngi leen ci encouragé fekk fi suñ njaboot yëpp ànd ak ñoom ci loolu moo tax ñu ñëw fi kon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah